आजा जूम गाय वाह वाह चार तुम्हारी नैसान अकबरोरी वाह वाह बड़ा डेमो हाउस चेकआउटोरी चार तुम्हारी नैसान मोयर रसबी वाह वाह चार तुम्हारी अकबरोरी वाह वाह बड़ा डी डोरना Marodi dorna Marodi a droite Thiatou agus, à gauche Thiatou Marème ngeen jàkkaar lool Thiatou Marème ngeen jàkkaar lool moo jox kanam aca dam nañ waaw waaw Thiatou Marème ak Marodi waaw waaw aha Thiatou Marème ak Marodi arbina wow ngeen bare waaw waaw Thiatou Marème moo leen woon Marodi moo jàkkaarloog yeen aha Thiatou Marème ak Marodi ndeysaan ñu ngi fi ci arena nationale dimanche le 16 juillet 2023 ndeysaan Diouf yi production woote fii mooy Mor Diouf ndeysaan waaw waaw Caatu Mari cokaas na aha Caatu Mari ak Mbarodi aha Mbarodi ngi dóor Mbarodi ngi dóor Mbarodi ngi dóor Caatu yaa ngi naaw waaw waaw ak Mbarodi atumari moolu woon ginnaaw ndeysaan Marodi moo fete seen kanam aha mu ngi fii Arène Nationale ndeysaan mu correspondre tey dimanche le de juillet 2023 ko fi wootee Diouf production ndeysaan le promoteur mo juf aha eh Thiatou chatumari damna eh baba waaw waa ji rëpp na Marodi rëpp na Thiatou